الرحمن الرحيم وصلى الله safar bam sa sir junnatun الله سمعة نفعتني barke Cheikh Khadim barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke Sëñ Fallu barke Alaaji Baara ñu ngi nuyu mboolum yépp góor jigéen mag ak ndaw ci turu sëñ Maxtaar Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Bara Falilu mu ngi yëkkati ay kàddu ngir delloo ko Euh, sëñ Mor Gueye sopp na bi ci kàddu yu rafet yi nga xam ni moom la yëkkati léegi te mu jaaree si kàddu sëñ Abdoulaye nga xam ni boo dëgg fi yàlla feeñal ak diggante la mm-hmm. loo xam ni sànq maa ngi si bëggoon xuus dañuy wax ne rek ndogal suñu borom la ndax lu yàlla suñu borom namul la démb tey doogu ñëw ndax lan moo tax muy jotaay bi tey guddi gi kan lañ ko jagleel sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëñ Maxtaar Mbàkke kan lañ ko tuddee Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëñ Mor Gueye lan la dàkkatele boppam sopp salaatu wa salaam kon ànd bii bu amee. si jotaay bii ñu seede loolu seede gi nag mooy que ni dama fekke fekk gi mooy tàmbali nga ndax maa koy wax sànq ne ñoom seen ñaari jëmm yi bi ñuy dajee di gisee di bëggante bi soppante dañ ko fekke ak ñenn na si mbooloo mi sëñ Louga Mbow ma leen fekke na ko sëñ Mbacke Sow ma leen fekke na ko ak ñeneen ñu àndaloon si mbooloo mi soxna bëgg a fàllu siis doon def ay cant di sant suñ fàllu ñu waxoon ko suñ Maxtaar Mbàkke ñii ñun yàlla dogal ñu jóge fii dem Thiès di ziar suñ Maxtaar Mbàkke soxna si def ay teraanga si ngoon gi ñëw indil ko sëñ bi sëñ bi xawoon sax fàtte ngir ñàkk xam ñun ñi nga xam ni fonk gi ñu fonk te ñu ñëw si bés ba moom gis na sax bàyyi xel bés ba wante bi soxna si ñëw bi ñu dee teraangam ñuy bokk nañ si ñu ko soññ ndax sëñ xam bu baax xam ni lu mel nii li koy li mu def bëriwul dem ci programme non non ku dëkk Thiès ku nekk rek di nga mën a seede loolu koo xam ni foo leen gis programme boo leen gis ko ñun ñi ñoo ko bi ak yéen gi mu ñëwee wax dëgg fi yàlla bu ñu si nga nga nga nga nga sagalee ko. ndax nit amul lu bésam ñu ànd ak moom ñu def délégation ànd ak moom dem ca foofu la na mi mii tamit nekk wëllëre soxna bëgg a fàllu dajeeg sëñ Maxtaar bi sëñ Maxtaar yëkkatee kàddu soxna bi ki ko doon yëkkatil kàddu wax la suñu def li muy def bu yàgg bëggante am soppante seen diggante ba bëri na jotaay yoo xam ne nii tey jii Thiès amuñu ko woon mën naa ni sopp na bi mii moo tax waa Thiès am ko ndax la moom ku ko mi ngi yëngu suy bëri yenn saa yi sax day jóg àndaale fi te man xam naa ni ñun ñii sax di ay taalibeem am na yoo xam ni dañuy jafe yenn saa yi wante yenn saa yi ñu déggante mu ne wax ah, démb de sopp na bi laa àndaloon béréb sàngam moom laa àndaloon béréb sàngam kon xam naa ni am na fu la teg am na fonkel boo xam ne nii fonk na ko ndax lu ñu ñuy ànd ak moom ay ati ak at xam ci dara kon sëñ bi tamit mi ngi seede rek sëñ Mor Gueye la dala jàpp jàpp goo xam ni nag jëmmi Sidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mi leen bool rek moom la koy seedal wax na ma nag seen diggante si taxawaay yu bëri yoo xam ne nii euh, taxaw nga ko si moom ndax nee na mosoo lenam lépp loo xam ni mës nga dégg sëñ Maxtaar dañ siy def sa doole def sa jot def sa lépp te lii nii war na ko ndax guddi gi xam na lool te yaa ngi jóge ba Thiès ñëw yéene gi nga amoon sax mooy ñëw yendoog ñun kon sëñ bi nee taxawaay bi ak diggante bi gis na ko bu baax xataa yeeg yépp wante fonk boo ko fonk jàpp boo ko jàpp moo tax ngay def loolu yépp wante nak dengan ngeen rek boko jamono di liggey ci tolu islam ndax it dégg nañ ay séré ci mom yu rafet ndax ñepp xam nañ ni wa kër maam Alaaji malik lay lay ziar waye magal bu jotee day daan këram ngir ay passu magal yu muy joxe feneen bu xewlee tamit non mom daal leen naa ko jox muy islam képp koo xam ni bokk si njabootu muhammad moom loolu yitteem si lay dox si lay xëy si lay gont te yéene yi mu am sëñ ma daal yaatu lool yaatu lool lool lool lool te sëñ bi moom lu si bëri duñ koy umpante dañ koy déggante lu bëree bëri bëri wante ñun dañ siy fasaale nag ndax ñun sëñ bi dañ amul payam dañ amul payam ndax dafa dikk si dëkk bi maanaam sagal ñu sigil ñu yëkkati ñu ba aar ñu nag ba xam ne képp koo xam ne nii maanaam doonoo am benn bët boo ñuy xoolee tey ñu nga ñu bàyyi xel ndax xaw ni fi néew doole nag wax dëgg fa yàlla man naam lool dëkk bi wante ñëw naa si dëkk bi di def guddi alhamis, ma jóg toppatari bii ba ca kaw pour dégg rek ab daayira bu yëngu mu caa dem tàbbi tàbbi so wante gisuma ko woon naam nag ay magi ñu fi woon wante jëngu bi demeewul woon noonu te mënuñu woon dëkk bi wante tey jii yii bu yaatoo Mbàkke seen teewaay si dëkk bi la ndax fi mu nekk nii waxuma la benn fan wante ñaari fan la ñuy daayee ndax daan nañ fi def guddi alxamis di guddi sëñ Fallou nga ñëw ne ñu liggéey sëñ Tuubaa balaa muy neex Cheikh Rafal tàbbi ca ne ñu day def ngortu maam Cheikh Rafal chaque talaata ñu koy def. ñu leen di nuyu. di leen ziyaara di leen balu xaq di bal xaq ñëpp ñaan yàlla mi am jàmm ak sutura ak salaam yàlla na ko yàlla defal àdduna ak dafa guddi te bër seet jotagul te tabaarakallaa mbokk mi toog dama koy miin lool ci télé bi di ko xool mu neex ma lool waxtaanam mbokk mi tur bi laa xamul Maam Mbaay Abdoulaye Diop la tudd te bëgg na ko lu tuti bala may ko di len ziyara di len balu xàq di bal xàq ñep xamna ne duma tuddu ay tour di nuyo sama baye moma jangalon lolu ni ma doom jamono day xat te ko lim mën nga juum soo ñëwee ci mbooloo waxal ñu ngi nuyu kilifa yi te noppi ma ne ko bàyyi loolu gàtt na mu ne ma doom kilifa mooy nit te ay nit a ne ba yàlla waxee inni jaa'ilun fil ardi xalifa la wax ja jeex waa bàyyi leen boobu bisu laylatul xadri yàlla xamoon na turu malaaka yi wàcc mais tudd leen kenn rek la roppi mu yóbbaale gaa yi te nazalul malaikatu yàlla xamoon na malaaka yi wàcc mais tudd leen malaikatu li wa ruuhu fiha jibril moo yóbbaale gars yi kon yow Mbàkke boo tooge du ñu tudd tur yow rek la ñu tudd Alaaji Maxtaar ñaanal la yàlla yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na yàlla dul sa sutura kaddu yi ma yëkkati nag kaddu alhaaji Moor Gay nii la sopp nabi di xaritam di soppeem di wóllëreem waaye li neex Mor Gueye ci yoonam gi nee naa laajo Maxtaar da ko yëg te damay wax ni jaamu yàlla yëpp yëg moo koy lal su ko yëg lalul bàyyi milliard su amul sëlmalal góor ga dafa doon ci sukuraat woo doom yi ba ñëw mu ne leen doom feebar bii àllaaxira la jëm ak man ñu ne ko bàyyi lu xew mu ne yëg naa ko àllaaxira la jëm ak man docteur yi dégg naa la ñu wax ci résultat yi waaye doom su ma deewee na ngeen daxal ni matt lakk ma ñu ne ko bàyyi lu tax mu ne doom lu yàlla tere def naa ko sama ndaw lu yàlla ni bu ko naa ko lu yàlla ni bu ko naan naan naa ko fu mu ne bu leen dem naa fa rus naa dajeeg moom ëllëg xale yi génn ci bi ku makkee waaw li bàyyi wax saal bi lu ngeen ci xam ñu ne yàllaay wax de yàlla ne fa man baddala min baadi ma samia fa innama ismu ala alladina yubaddiluuna attention inna allaha samiin alim yàlla ni képp ko dénkaane ci feebaram wax ni bu deewee na ngeen ko defal lii su deewee ngeen def leneen la wuuteeg la wuutoo moom nee na attention avant muy dee dégg naa dénkaaneem bi mu deewee ngeen ko ka ñëw nu ngeen tànte kër ga xam naa docteur bi daf xale yi ni leen góor ga noppalu na ñu taxali mat lakk ko mu doon doom ëpp li ci géej gi ëpp li ci géej gi faxas seen loxo ni lii la bàyyi bëggoon waaye ruu du dee yàlla laaj ruu gi ni ko lu la xiir ci lii nga def lu xale yi mun a burs dajeeg yow yàlla loo tere def naa ko loo ne bu leen naan naan naa ko rus naa dajeeg yow ëllëg loolu rek daa ma dugg ci lii yàlla ni ko ëllëg su ma àggee jaami jannatul firdaws ngay def mu ne yàlla lu ma may loolu mu ne yëg gi nga yëg ne am naa <coughs> kon Mbàkke sa diggante ak alxaaji Mor Gueye yëg moo ko gën a neex sa diggante ak moom ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen ànd bi yàlla na ko yàlla aar ci sa barke maam ci sa barke baay ci barke weer ci barke yonent yàlla Muhammad mi ngi ñëw ànd ak xaritam bi ko féete nday joor muy monsieur le maire Pascal maire wu ndàngal ma xam na sànq am na ko wax nit Mor Gueye sopp na mi ñi bu àndal yëkkatiwu leen wax na dëgg ñun tiile lañu mais dañoo lewet ba duñu fàtte bëy yi moo tax dillu yu mag yi bàyyi ñu xel ñu doxuñu kii bu nu indee ba fii jikkoom la sëriñ bi yëgul ni dañu luwe baas mën nañoo luwe seer mais nga ne kenn du luwe nit ah kay dinañ nuyu nit xam nga nit jikko mooy nuyu nit. ñu ñaanal la yàlla mbàkke yàlla yàlla dëgëral la. kii féete ma tabaarakallah di alxuseyn Diallo di sunu xarit di genn wàllu moor di lépp mu ñëw ànd ak ñun ci délégation bi ñëw gunge la. kële féete fële di alxaaji Umar Dem tabaarakallah nga xam ni moom moor dégg du ñu ñaar kenn la ñu ñoom itam. ñi ñoo ñëw ànd ak ñii nga xam ni tabarakallah ñoo ñëw yor yi di wëllëre moor nga xam ni fu nu moor jëm ñu jóg ànd ak moom ñii ñoo ñëw ànd ak moor ñëw gunge ko ci sa jotaay bii ñu ñaanal la yàlla sa njaboot gi yàlla na yàlla fiir leen sa barke maam sa barke baay lii nga def dafa jafe xam nga bisu 31 bis bu doy waar te bill di kenn ku ne bi ngay ñëw fii déggoo ñu wax attention te leneen lu dul fii ña jëm feneen ña nga ca attention déggoo bi ñuy def avant première attention attention ce soir au cosaan <laughs> mooy bul ñëw Iblis dafa ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun alam a'dilkum yaa bani aadama ne woon naa leen an laa ta'budu shaytaana innahu lakum aduwwun mubiin ma wax leen woon a'buduni haadha siraat al mustaqim du yàlla wax attention attention foo ko dégg Iblis dafa ne fii dégg nga attention bi ñu ñëw amul fii boo fi déggoo man ahsana xawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin kon Mbàkke lii mooy kaddu yi ñaanal la yàlla su déwee ne yàlla nañu ñëwaat ñu toogee nii yàlla na yàlla yàggal ci barke yonent yàlla Muhammad mbokk mi ñu ngi lay ziyaara baax a baax par léeg-léeg tabaarakallah par léeg dama lay seetaan ci kii bi mais damay bég lool ci waxtaan bi